amul moroom sàkk na mbër yu rëy ci ñoom leeral na penkoom ak soom lu yàqu dootu ñox ñoxi Cheikh Ibra Fall amul moroom Cheikh Ibra Fall amul moroom Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall amul moroom Cheikh Ibra Fall amul moroom boo ko defee Cheikh Ibra ci boppam eh, sëñ Bay Jaxate li mu wax ci moom dafa leer dafa ne xamal yow ne sëriñ Ibra Faal man sax ci moom laa jëkk jéggi ko wax sëriñ Ibra Faal sëñ Bay Jaxate du nit xamal yow ne sëriñ Ibra Faal ak alxuraan ñoo yem ci jaam ñi gisal ma wan la ko ko xam Cheikh Ibra de sëñ Bay Jaxate nee na alxuraan ak Cheikh Ibra Faal ñoo yem ci jaam ñi li alxuraan di dox képp ak li muy def ci jaam ñi la Seex Ibra di def ci nit ñi xamal yow ne Serigne Ibra Fall ak alxuraan ñoo yem ci jaam ñi gisal ma wan la na ngeen déglu loolu baax daan ne ba yoneen ba nekkee ca bokkam ya moroom lañ ko def boobu sujjóot bii xewagul bu toogee ca kaw ñu toog ci kaw bu waxee ñuy warantee ko weddee ko xul ba yàlla wàcce ci ñoom saaru xujuraat la ñuy soog a xam ne la ñuy def warul lawoon loola moo dégg wolof lawoon loola mooy tey jii ci Cheikh Bamba mi ba Cheikh Ibra Fall ñëwagul mbiram yaatuwul loolu na ko ñëpp nangu waxul ne maa fa jëkk ak yooyu waxu ko sëñ Bay Jaxate ne ba Cheikh Ibra Fall ñëwagul mbiram yaatuwut la wax ba mel nii bu ko defee nag Cheikh Ibra digganteem ak Serigne Touba liñ ci mën a wax rek lañ ciy leeral waaye am na ci loo xam ne la ñu Baye Tomb Deel waxoon Baye Mor Ndiaye Tomb Deel lam ñu waxoon maag Sëñ Adama Sarr daf na waxoon ne dégg naa ngeen di waxtaan Cheikh Ibra yaag njaga waaye nag bu leen wax kenn xam ngeen ko de wax leen li ngeen di wax rek mu dimbali leen dimbali nit ñi Baye Tomb Deel moo nu ko waxoon. nga bu leen ne kenn xam ngeen ko ndax bu ngeen ko waxee rek wax lu ngeen xamul bu ko defee diggante sëriñ Touba ak Cheikh Ibra mës naa dégg sëñ Amadou Tasrif Sougou mu ciy waxtaan ak sëñ Cheikh Fall Baye góor ca kees ma toog mu ne ko mbaa xamoon nga ne Serigne Touba lu mu mës a santaane bu sañoon lu jóge ca lool Cheikh Ibra mu lay doon daana jékki-jékki sax ne. ndax lu ñore tool Cheikh rek ci nangam am na fi wala mu ne ndax ndima lu mel nangam te Cheikh Ibra joxe woon ko fi ndax am na fi wala mu ne ndax àlluwa ju mel nangam te jóge woon kër Cheikh Ibra ndax am na fi daana laaj loolu bu ko defee bu amul mu ne andil leen ma li fi am nga xam ne dafa taamu woon jëfi Cheikh Ibra bokkul ak ñi nga xam ne nag dañ naan Euh, kudul julli du woor dingal loo laal ci moom nangam nangam xamuñu li xew Cheikh Ibra Fall nekkul foofu sëñ Amdi Tasrif nee na euh, Serigne Touba daf ko mas ne war ngaa am kër ci dëkk bi njaareem moo ma ko moo ko nettali sëñ Cheikh Fall ma toog mu ne ko da ngaa war am kër ci dëkk bi na la ko diw dem rëddali daal di koy jox joxuñ wet gi ñu war a dem sëñ Amadou nee na. ba koo kooku jógee sëñ Tuubaa ne ko toogal sax nañ ma woole Ibra Faal ne mu jaaxal ma lool ndax kooku na mu selleek na mu baaxe nee na ñu woo Cheikh Ibra mu ñëw sëriñ bi sant ko mu dem rëddal ma kër ci tànkam yu baax yu teddee nii la toppee barab bi rëdd ko ci tànkam ba ne ma lii doy na nee na bi sëñ Modou saa Mbacké toogee ñu ne ma kër gi dafa jege ci yow wutal nañ la jox feneen ne ma ñàkk kër ga ne di dem di dem di dem ba benn bés ne sama doom ju ñuy wax maam ma sugu ndekete borom kër ga ka ko doon ka ko doon naat ma ngay jaay kër ga nee na maam ma jënd ko te xamul ne moomoon naa kër ga te mu naqari woon ma lool nee na mu ne ma bàyyi dama laa jëndal kër fii ci njëriñam bëggoon laa bett jox la ko addiya ma ne ko ah nañ dem waaye kër ga ma sëñ Tuubaa waxoon Seex Ibra mu rëddal ma ko de moo ma gënal nee na mam ma dawal oto ba ci buntu kër gi muy muy muy kër googee woon ma ne ndekete sëriñ bi daa xam ne bu ko këlee rëddoon dana ñàkk kër gi waaye Cheikh Ibrahima lu mu rëdd dootoo ko ñàkk moo tax jëf jooy jëf boo ko tàmbalee ci Cheikh Ibrahima jëf jëf du yàqu te doo ko ñàkk dem na ba ci sax loolu moom sama yoon nekku ci waruma ko wax waaw <laughs> <laughs> waaw moo tax nag Cheikh Ibra wax wax ne léegi nag sëñ Bay Jaxate wax ne ba yàlla wàcc ci ñoom saaru xujuraat la ñuy soog a xam ne la ñuy def warul saaru xujuraat boo ca demee di nga gis fi Cheikh Ibra jële yoonu murit loolu defe naa ne waxtaane naa ko ay yoon jarul jëli si waat sëñ Alaaji Buso Tàmba damaa mës a toog ak moom ci Italie mu ne ma sëñ Ibrahima Buso sama baay mu bokk ak soxna Awa Bousso lépp sëñ Ibrahima sëñ Touba da ko mos woo ba mu ñëw mu ne ko mbaa xam nga Yoro Fall mu ne ko waa dinaa ko gis nii de mu ne ko na ngeen wëlërante ndax seen kër yee jàkkaarloo ca àjjana <laughs> na ngeen wëlërante ndax seen kër ca àjjana nee mu wëlërante dem wëlërante ak Cheikh Ibra waaye sëñ Alaaji nee ma moom moom bi mu fi bëgg a jóge bi mu demee ba daanaka waxatul dafa maasale suuf si ne nañ ko wool waa kër gi yëpp ñu fi teew ne waa kër yëpp teew mu bind ci suuf kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall daal di noppal neen loolu la mujj bind benn ndigal laa jox sama waa kër man sëñ Ibrahima Bousso mooy mel leen ni Cheikh ma te kat fi ñu ko denc ak fi ñu denc Cheikh Ibrahima daa jàkkaarloo te sëñ ne woon na leen seen kër yaa jàkkaarloo ci àjjana. Cheikh Ibrahima Fall yaa njëkk a jébbale sa xol fekk nga boo ko defee nag Cheikh Ibra eh, dafa am at moo xam ne genn kilifa gu mag dafa nelaw ci Sénégal Cheikh Ibra waxtaan waxtaan wu rëy woo xam ne ci la leerale islaam bépp bépp ak coono bi ñu ciy daj. ak yëf yi ci nekk yëpp keroog la ko Cheikh Ibra wax te kat benn waaye rek moo ne nangam bu mag jóge na fi Cheikh Ibra ne ko bu ko waxati nangam bu mag amatul nit ñi koy tuddoo waaye loolu amatul ci kaw suuf te am man gis naa ñuy tuddoo lool ba tey te Cheikh Ibra nee na amatul waaw xam nga ne li gën a garaaw nag di tuddoo dara te amatul <laughs> nga xam ne yàlla amatul fa yàlla. <laughs> nga ànd ak sëñ Tuubaa daal kéemaan la. mu Cheikh Ibrahima ne ko tudd ne ko tur woowu amatul daan ne ko xam nga mag sëñ Bamba lu ñu àndi jamono mu ne ko déedéet mu ne ko naafeq yi la ñu génne si lislaam daan ne ko xam nga naafeq lu mu mel ci lislaam te moo bari nag ci jullit léegi nag na ma yàlla jéggal nag ah yàlla nag yàlla moo xeriñ moom mu fexe ba andi suuratu munaafiqun <laughs> waaw gars yi naafeq da ngeen ne ci yéefir yi lay ne déedéet naafeq du yéeféer jullit la wala ci biir islaam nga koy seet amul ci yéeféer yéeféer yéeféer rek la na leer nag kon nag Cheikh Ibra nee na mag sëñ Bamba dañoo ñëw ngir génn si naafeq yi lislaam daan ne xam ngeen naafeq ci tool mooy lan ñu ne ko déedéet mu ne mooy jëmb ci tool day ñuul kukk jëmb ne day ñuul kukk borom tool ba di yaakaar waaye mujj mujj ga tas yaakaar yi borom tool moo tax ma ak sëñ ba ñu ne nañu àndi yoon woo xam ne naafeq mënu ko <laughs> Cheikh Ibrahima nee na naafeq lu mu la mën a wax ci lislaam du joxe boppam du jébbalu mukk nee naafeq lu mu la mën a wax ci lislaam du joxe alalam mukk des la koy neen du ko def mukk naafiq lu mu la mën a wax ci lislaam du jëbbaleek njabootam du joxe deretam du joxe du joxe deram nee na nag moo tax mag siñ Bàmba ñu woote yoon wax ne naafiq mënu ko bu ko defee nag mu ne keroog la ne sama yoon wii deful woon lu ñu diglewul ku ko àttan moo fi amul woon sama yoon wii deful woon lu yàlla diglewul kon nag na nan teelu bu baax a baax te déglu nag li ñuy bëgg a wax nee yoonam wi deful woon lu yàlla digle wu ko ko attan moo fi amul woon xanaa xamuloo ne waaw xanaa xamuloo ne Cheikh Ibra ci boppam wax na ne am na ay aaya yu ne ci alxuraan yoo xam ne booba gosaas laa dem ci sëñ Matar Lo ba gosaas mu ne Cheikh Ibra wax na wax na maamam sëñ Mambay loo ne ko Mambay na nit ñi def ndànk ci alxuraan moo tax yàlla na yàlla yokk leeram sëñ Abdul Hakim Mbakke te taas ñu ci barkeem sëñ Abdul Hakim daana wax naan alxuraan li ma ci jaaxal wax na ko aw nit te kookoon ci jotaay bii ne ko alxuraan muy masin la mii sëñ Abdul Hakim nee na ko alxuraan li ci yéeme mooy lu mu firi tey bu ëllëgee du ko firi te gars yi ne ay ustaas lañu dañ ko mokkal ne dañuy gindi nit ñi bañ dajeeg seen borom te loo wax ñu ne nekku ci comme xam nga loolu toujours toujours ci lay dellu si masil laa ngi nii sëñ Abdoulaye kii ma ko wax mu wax ne sëñ Matar loo ne Cheikh wax na sëñ Mambay loo ne ko am na aaya alxuraan yoo xam ne ñoo mag fuuf alxuraan wàcc na lu yàgg ba ñu jëfe ko te booba booba dindi bi sax amagul jooju alxuraan neexul a dégg de hmm? daan ne ko am na aaya bu nekk ci suuratu safi Cheikh Ibra ko wax ne ko yaa ayyuha allazina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun yaxfir lakum zunubakum wa yudxilukum jannatin tajri min tahtiha al anhaar wa masakina tayiba fi jannati adnin zalika fawzul azim mu ne ko maxtaar mu ne waaw mu ne ko aaya boobu ba muy wàcc seen maam sax judduwul aadama lu naqaree xamal loolu ne ko booba ruuxi awliyaa yi suñ borom sàkk na leen bu yàgg ndax ñoo mag ñi nee na ci taatu garab la leen tëddal tëral di wax ak ñoom di leen laaj nee na ko aaya boobu ginnaaw bi yent bi ñëwee lañ ko wàcce wat waaye wàccoon na bu yàgg Cheikh Ibra Fall la raw moo tax ustaas yii xam naa nag moo waxatee ñu ne ma ngi xuloo xuloo ma nag dama leen a bëgg dimbali rek ñu def ndànk waaw jàng jàng ñaari téere rek bu ñu waxee nga naan ko dul julli du woor nangam nangam di wax man gis naa sax ku wax ne Cheikh Ibra Fall kat bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi dafa jaaxle woon bay xàcc waaw gis naa ku ko wax nit xam nga ne loolu reelu na de bi ba noppi ca fenam yu mag ya mu ne koo ko mën a fen waaw nañu wax dëgg gi rek daa mën a fen mu ne looloo tax Cheikh Cheikh dafa xàccoon ba tuddee do benn doomam benn sérifu naar sérif Assane lay wax nee na nee na ginnaaw bi la sëñ bi dellu si mu dellu si waat <laughs> ah sëñ Cheikh Fall daana wax fen yi ëpp na de wolof nag baax na waaye ñoo dàq wax la ci ginnaaw dëgg ma ci Cheikh Ibra mii nag la rawe bu ko defee sëñ Matar nee na awliyaa yi la suñ borom doon laaj question boobu yaa ayyuhal lazina amanu waaye nee na waxul ak jullit yëpp hal adullukum ala tijaratin ndax duma leen tegtal yoonu jaayante ak jëndante Cheikh Ibra nee na keroog la sama yoon wi judd mu nekk yoonu jaayante kese nee na kenn ku ne na bëgg naa ko xam suñ borom ne tuuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum da ngeen di gëm yàlla gëm yonent bi di jixaar ci seen alal ak seen bakkan loolu de moo gëm ci yéen bu dee xam ngeen nii awliyaa yu yëpp ne diis na ñu Seex Ibra nee na keroog maa tàllal sama loxo ne sun borom jox ma ko sun borom wax ma la ca tegu keroog kenn ku ne bëgg ngay man sëñ Matar loolu laa dégg mu wax ko de ne suñ borom ne yaxfir lakum zunubukum yow moom yàgg seen waa kër balaa ngeen di àgg si fii jéggal naa leen balaa ñuy bind àdduna koo xam ne nag ba yàlla laata bind aadama la ko jéggaloon ku koy digg safara boo yeboo nga préparé dem ca yow moom boo yeboo nga préparé sa wàll yow leeral na bopp jaara tey waykat wa Samba Jaara Mbay moo tax dënnam bay pex yi ndar la ko doomi Jaara may Cheikh Ibrahima Faal ndar la ko doomi Jaara Sëriñ Daam Abdourahmane Lo leeral na bopp Jaara dafa wax ci Cheikh Ibra melal ko xam nga wax naa leen ne leen bu bu fekkonte ne def nañu li ñu war a def gis nga université yëpp nit ku ñuul université yëpp Cheikh Ibra Fall la ciy jàng ndax sànq américain bi wax na ko nee na Serigne Touba du lu ñuy xam nañu jéem a lijjanti ko nu ñuy lijjanti ko Cheikh Ibrahima moo gën a wóor ñuy sëp sëplu ne dañuy xam sëriñ te sëriñ bi ne raabat ma xam yi an siwa daax ku dul yàlla xamuloon waaye na ni abdun xadimun laa yarim xam naa dalay bëgg a noppal xam nga sëñ Touba dafa dafa yéeme waxin su la waxee loo xamul da cay teg loo xam waaye du la bàyyi li nga xamul ngay lang-langi mu ne raabat ma xaami an siwa baaxil karim kudul yàlla xamoo ma waaye foog mu teg suñ loxo luñ noppaloo mu ne man mii abdun xadimun laa yarin jàppe leen ma jaamub yàlla buy liggéeyal yonent bi te du wàcc abdul xadimun laa yarin te sëriñ Tuuba li tax nga xam ne bokkul ak ku yàlla bind kiimaanu islaam la Serigne Touba gis nga tey jii buñ ko doon defaral kar carte d'identité wala passeport buñ ko doon defaral passeport bi date de naissance bi ak ndey ji ak baay bi noonu laa ko mën a waxee daal damay expliquer ak adresse bi yëpp ay ay alxuraan la xamoon ngeen loolu. ah sëñ Tuuba dama ne buñ ko doon defal carte d'identité buñ la nii nu mu tudd bul wax Ahmadu am na la aaya booy wax rek ñu xam ne moom ngay wax buñ nee nu mu sant am na aaya boo xam ne boo ko waxee dinañ xam ne moom ngay wax buñ la nee ban année la gane jamono ak ban weer ak kii benn aaya alxuraan ngay andi loolu mooy sunna de loolu mooy roy alxuraan de sëñ Touba boo doon def boo doon def waxtu wi mu gane jamono ci këyit noo looy def dafa am aaya alquran boo xam ne mu ngi tàmbalee charaa mi mina diin maa wasi bihi nuuxan ba aaya ba jeex charaa lakum moo tax sëñ Musaa Ka ne ko bala yàlla yebal si fii fi ama charin booba mbooleem lu dul xubdu yaa seen sultaan bala yàlla yebal si fii ama charin boobu mbooleem lu di xut bu yaa di seen sultaan yi sëriñ Tuubaa ama charin la gane gane jamono te chariatul mutahara la yont bi doon woote si nga xam ne suñ borom dëppale na kook at mi nga xam ne moo tombeek ni ñuy woowee li yont bi jàngale charia xaw ma ndax dégg ngeen li ma hmm? dégg nga li wax ah waaye sëñ Ousmane yooyu tamit nag <laughs> sëñ sëñ moom sëñ sëñ bi moom xam na li ma wax sëñ bi xam ñii xam nañ li ma wax xam nga charaa lakum ne diin charaa mooy yoonal mooy chariatul mutahara ci la yàlla tënk yonent yëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw mottali ko mbooleem xeet lañ doon def yëpp mu ñëw mottali ko ne innama bu istoli utamima makaarimal axlaaq baatu charaa lakum boobu ngay dégg ñu ne xat wulidal xadim ama sharaa yàlla dafa bàyyi ba calendrier bi di dox di dox ba tolloog sharaa sëñ Tuubaa gane jamono lëkkum ji quatre vingt la te loolu boo koy firi mooy yoonoon nañu ci yéen sharaa ji la gane jamono lëkkum ji la waroon na dund loolu moom defe naa ñëpp xam nañ ko sëñ Tuubaa quatre-vingt-dix la waroon dund moo tax kenn xamul lu mu doon te soixante-quinze ans la dund fukki at ak juróom yi da ko maye ñetti juróom la ko séddale ñetti nit dind ci dindi ci dundam ñeent dind ci dundam juróom may kenn dindi ci juróom mayat kenn dind juróom may keneen daal dund soixante-quinze ans mu loolu mas ngeen gis ku ko def ci àdduna dama leen di laaj rek hmm? lii de bu doon beneen xeet a ko def ñun ñi balaa ñu balaa ñu jot ci kooku danañ daj lu ne moo tax mu daal di dandu fële lazina amano wa amilu salihati tuuba lahum mu moom tuuba ba noppi dund lahum lahum soixante-quinze la waaye li ci yéeme mooy wax xusnul maab moo ci tegu xusnul maab ku ko moom ci yoonu murit hmm? tindóor yi mooy xusnul maab sëñ Moodu Moustapha xoolaloon ni mu tegaloo tuuba mu ne wajal ilaahi maskani tuuba abat mislas miha bi jaay xayra man abat defal tuuba jooju ci suuratu raxdi ci daraje yonent bi mu mel ni turundoom ba ci àjjana ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu tegaloo noonu mu dund lahum soixante-quinze ans laam trente xaakubéer juróom mim quarante du soixante-quinze sëñ Touba dund lahum taawam am ab dëkk muy tundoo di mu tudd ko xusnul maab lazina amano wa amilu saalihaat tuuba lahum wa xusnul maab alxuraan wala moomu ko hmm? Cheikh Ibra dama doon garmbaasu ci sëriñam bi rek Cheikh Ibra amul lenn lo loo xam ne mas na koo def ñu xamal ko ko lu dul liggéeyal sëriñ Tuuba te moom rek mooy murit bu mas a def loolu maanaam dundam yëpp mos cee def lu dul liggéeyal Serigne Touba xam nga mës na tawat yónnee ne na ko Serigne Touba wutal saafara sëñ Mortala Fall moo ca demoon bi sëñ Mortala ñëwee sëriñ bi bëgg koo jox saafara ba mu yàgg ne ko dellu seetal ma ko naka lañ ñëw ci kër gi ne ko ah moom de daf nu doon waaj jox saafara ne nen dellu seet si la mu ne ah jox na leen saafara da ngeen koy yégul ci seen bët yi la ko def gis naa ko ah, xam nga addiye yi jóge kër sëñ Touba di dem kër Cheikh Ibra gis nga addiye yooyu li ci làqu ci mbóot kenn mënu la ko wax Baye Cheikh Tall Gallo nee na ma sëñ Abdou Khadir mu baax mi daa mës a ñëw kër seex seet ci sëñ Modou Moustapha Fall njaarim nee na bi mu agsee sëñ Modou Moustapha Fall tàmbale reen di gàtt yi di ko ganale sëñ Abdou Khadir ne ko dama dul toog dama fi jaaroon rek di la seet mu gunge ko ba sëñ Abdou Khadir dem ba ca gaar ba jëfi Baye Fall laa lay wax de ku defee ne seen jëf ak sa jëf ñoo tolloo juum nga am na ci ñu sant Mbàkke ñoo xam ne dañ daan jox sëñ Modou Aminta yàlla na yàlla yokk leer dañ ko daan jox addiya te mën nañu wax seen tur mën leen maa leen war a jox ñu ne ko déedéet dañoo bëgg sëriñ tubaa nangul ñu te xamuñu ndax buñ ko joxee sunu addiya dana ko nangu ñu bëgg ko dugal ci addiya Cheikh Ibrahima mi nga xam ne lu mu ko jox mu nangu ko sëñ tubaa du delloo du delloo addiya Cheikh Ibrahima lenn Cheikh Ibrahima sëñ tubaa du ko delloo sëñ Modou Moustapha gunge ko jox ko addiya ba sëñ Abdou Khader dugg ci saxaar gi mu dëpp ne leen togg leen rek nit yow yaa ngi doon gane la gan mu dem lii lépp nga nar koo togg ñuy togg ba togg yi àgg sëñ Modou Moustapha Fall ne yenu leen togg yi ñu yenu togg yi mu jëm gaar ba ñu ne waaw lii moom mooy lan kii ba kii de xanaa dem na bu yàgg ñu ñëw fekk saxaar gi demagul ñu ne dafa paanoon dañ koy defar sëñ Modou Moustapha Fall dugg ci biir saxaar gi wàcc ñi ci saxaar gi yëpp moo ëppoon fulla ci àdduna nag wàcc ñi ci saxaar gi yëpp ñu wàcc mun la may leen ma tuuti lal saxaar gi lax lal andim raxasu jox sëñ du Khadir ne ko jëf du jóge ci ñun mukk jëm ci yéen te du àgg sëñ du Khadir xéwlu ba noppi saxaar gi sifle mu dindi bagage yëpp nit ña dugg saxaar gi sifle dem moo tax ko yebu léeg-léeg di buruxal sa jëf ci jëfi Cheikh Ibra baax na de moom laay faral di wax yor franc CFA ñëw ca bourse bi ca yor York naan leen CFA laa yor dañ na naan sëñ bi yow lii lii da koy wecceeku ju dollar <laughs> loolu mooy jëfi Cheikh Ibra mooy dollar da koy wecceku dollar bu ko defee nga mën a wax ak gaa yi te pourtant boo demee seen dëkk boo ko jëfandikoo ñu nangu ko jëf jooju ba léegi nag noonu lay demee noonu la mooy jëf jii ñuy waaja yëkkati di ko yót sëñ Cheikh jëmb képp ku ci sa dërëm dem ni ko sëñ Saliou Samb doon waxe tàbbal nga ko ci loo xam ne sëriñ tubaa nangu na ko bu wér te amul delloo waaw Cheikh Ibra lu mu jox sëriñ Touba sëriñ Touba nangu ko. liggéey foon sëñ bi waaw sëñ bi sëñ bi. sëñ bi. waaw. mu ngi ca Minanu Baaxal Xadim mu ne. dafa bokk ci kéemaani Serigne Touba yi nga xam ne kenn mënu ko woññi Cheikh Ibra Fall ñu ne ko waaw Cheikh Ibra Fall mooy kan mooy kan mu ne allazi yaqumu bi xidmati cheikh wa xidmatil muslimin nañ déglu bu baax sëñ daam li muy wax ne Cheikh Ibra Fall taxawaayam yëpp liggéeyal Serigne Touba képp la nañ taxaw foofu tuuti tawat jooju ba mu dalee Cheikh Ibra sëriñ Touba da ca wax wax ju yërëmtu wax ju doy waar daf ne Ibra de la dale ca bo weewu euh, ba karawu boppam ba ba ca weewu tànkam ba lu cay metti maa tax liggéeyal ma rek a tax lu ko dal maa ko teg kooku am na garantie ci sëriñ bi bu wér wane ne moom mës génn sëriñ bi dégg nga dégg nga dégg nga ni ko sëriñ Moussa Ka wax ne ko daawoo juyoo ak ndigal bu ko defee. sëñ Ndaam Abdourahman loo ne Cheikh Ibra dafa taxawoon di liggéeyal jullit ñi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa wa yastamiu alayhi abna al umara wa banatuhum addu afa buur yu jëkk yi ceddo yi ngeen may ñu rek tey dégloo mën ngeen a kii ndànk rek buur yu jëkk yi ak ceddo yi bi làmbi bi seen nguur tasee sëñ ndaam Abdourahman loo nee na amatuñ ñu jëm ndax lañ doon def sëriñ si démb moo tax mënuñoo dem ci sëriñ si dégg lu baax wax ji Cheikh moom bari na solution yu am ci lislaam moo ko ci andi bu dul woon moom ceddu yi de duñ bokk ci lislaam ba tey mënatuñoo dem ca sëriñ sa te buñ da waxoon histoire sëriñ ak ceddo fii rek lu yéeme la nag ci Sénégal xam nga ne ab sëriñ ceddo daana ko woo duggloo ko xalwa sëriñ ba dugg xalwa ba noppi ceddo ba gis lam ko doon defal mu wóor ko ne ñaan ngi nangu na mu fay ko alal ju bari fay koy jaam jox koy nag jox koy fas sëriñ ba jiital ko di dem mu mu mu mu yebal ñu ñeme yàlla ñu yor seeni jaasi ne leen dogale leen ko ci dëkk sàngam na génn fii yëpp nag rey ko delloo seen ma yëpp ceddoo ayoon ci sëriñ <laughs> ceddoo xam naa nag am na lu ma sëñ Assane waxoon ci ceddoo ak sëriñ yooyu waaye naa du ma ko wax <laughs> sëñ Assane sëñ Assane mais moo ma ko wax kat <laughs> loolu loolu moom duma ci àgg dégg nga noonu lañ daan def dab leen rendi leen nanguwaat ko delloosi ko loolu lañ fi nekk woon ak ceddo yi moo tax sëriñ ceddo yi bi seen nguur tasee tubaab yi dàq seen nguur ndax am na ko mësa laaj sëñ Tuubaa ne ko sa digganteeg tubaab bi nuñ ko mën a misaale sëñ Tuubaa ne ko damaa fekk ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa ay golo yu yàq te samay mbokk lañ te mënuma leen a dàq ma ñaan yàlla ne ko génneel ma golo yi tool bi yàlla moom moo gën a xeriñ ñëpp mu àndil ma xaj mooy tubaab bi lay wax di ndax nee na golo yi mën a lu ma leen dara te dañuy yàq rek te nee na xaj ay ci ñoom ne suñu borom ma ñaan ko mu àndil ma xaj yàlla moo def ci xeriñam àndil ma xaj nee na xaj bi dàq golo yëpp ba ñu génn muy yenn yi mu dàq leen yenn yi mu rey leen xam nga noonu la demee a ah, nee na nag ma ne ko nag yow nag danoo ñaanoon ba nga ñëw fi rek léegi abal ma tool bi mu ne ma déet du ma génn ma ne ko kon maag yow la neen lii moo ma booleeg nasaraan bi ah, moom dañ ko andi woon rek ngir mu génn leen tool bi mu ne moom dafay dëkk moo tax ceddo yooyu nag boo gisee tey jii ñu fiix ci lislaam Cheikh Ibra tax ndax dañu xam ne ci moom rek lañu mën a boot ñi daw boot ci moom moo tax sëñ ba si sëñ ndax Abdourahman ne nag li ma jaaxal nag mooy lii ma lay bëgg a wax ni ko Cheikh Ibra mëne ay nit ñoo xam ne xamuñ ci yàlla dara mosu ñoo jaamu seen borom ci seen bakken lañu ñu mësa ne di def lu leen nee na ay ay nit yoo xam ne dañoo ñëwoon jox ko seen bopp ne ko yàlla képp lu ñu bëgg ñu sell nee na sëñ daam nee na loolu moo ma jaaxal ci Cheikh Ibra nan la mën a dajale ku takk grip ak ku set wecc fexe ba ñu bokk benn bëgg mooy talabul ridallaahi wa rasuli nee na ñooñu ñëpp mu fexe ba ñu bokk génn bëgg mu yóbbu leen ci yàlla ñoom ñëpp ba ñu bokk am ngërëmal seen borom moo tax sëñ Sàmm Jaara ne ko wa baabu baytika maftuuhan li xaasidihi te buy xaraf dal di bëgg yaram bi naam faal yow doo tëju kenn bañoo kenn daqoo kenn bu fi loon ñu xam waaye koo gis il est day wax ku melul nangam du ànd ak man di dégg ngeen ko Cheikh Ibrahima noonu nu nit mën a mel waxuñu ne ku mel ku ànd ak moom nu la neex mel waxuma lool de daa laajug dégg na dama ne nu nit mën a mel mën na laa fóot ba nga set delloo la yàlla loolu laa waaw du bañul kenn du dàq kenn te it Cheikh amoon na mag ñoo xam ne ñii wóor na yàlla doomam yi sax ëpp nañoo àgg di tudd sëñ Abdou Sakour Fall di tudd Cheikh Sérif Assane Fall di tudd sëñ Modou Mbend Fall ñooñu seeni wilaay ëpp na nit ñi waxuma Cheikh Ibra Cheikh Ibra am na ñoom defaroon ñoo xam ne ñooñu rek xajuñu ci ñi ñuy tudde ay borom jamono am na kuñ daan wax sëñ Matar Lo sëñ Matar Lo taalibeb Cheikh la woon xam nga nu mu daan def foo ko mas a fekk sëñ Cheikh Fall Baye góor ma ko nettali foo ko mas a fekk day ngembu ba noppi sol yërim di dox xam nga mag mu so ñu toogoon fii nga defe ne caaya la sol nga jékki-jékki gis ne ndeke daa ngemb xam nga lu garaaw nga da daan ngemb sëñ bi nee na ma gis naa ko ku yéeme ba tey waaye kooku jaaxal na ma moom da daan ngemb Cheikh Ibrahima Fall ne ko Matar Lo da nga defee li ngay def xaw ma ko ngemb lii ngay ngemb ci biir loo ci jublu mu ne ko ku defe ne moroomam nga rek ma tër ko ci suuf loolu rek laay xaar mu ne ko moo tax nga ngemb mu ne ko mu ne ko nooy daane mbër yi mu ne ko mbër mu ma gis baa rek laa lay jaay wax na ko mbër ba tàyyi nag aha baa la lay jaay baa xam nga kum ma sa gis nu mu lay def matoon na deux ak lu teg yor kattan goo xam ne noonu la amee baatin maam Saliou Fall rek moo daan def lenn ci Sénégal weeru mu xaram teru mu jël karne teg ko ci digg daaru xafoor lii ma lay wax nii demal ba daaru xafoor nga laaj ko teg carnetam ci digg daaru xafoor ne lii xew ba déwén laa ciy bind jox leen ko te dara mënu koo dindi maam Saali Fall rek Cheikh Ibra moo ko daan def fii ci Daaru Xafoor dama laajte ko ñuy wax mu ne weer sàngam nangam dana am weer sàngam nangam dana am weer nangam dana ba ñu àgg ca tamxarit ja ca des mu ne ubbi leen carnet saa bu ñu xëyee rek ne ko ah moom de Fall am na nangam nga waxoon mu ne balaa jant bi son ngeen xam man li may xam du toxu magi Cheikh Ibra yi rek doyoon nañu sëkk waxtaan waaw Baye Moustapha Fall guy ngéen sëñ bi xam na ko Cheikh Ibra ko yar waaw daf daan wax naan da daa damaa toog dégg mu ne Cheikh Ibra dégg alxuraan ne ne Cheikh Ibra mas na ko ne ah Moustapha guy ngéen ngërëmal yàlla ak yërmande yàlla xam ngeen nga ko mu ne ko ah déedéet Fall mu ne ko du benn de yàlla def ne jaamu leen ma ma yërëm leen walla ngeen liggéeyal ma ma gërëm leen Cheikh Ibra ko wax ne ko yërmande yàlla nag li muy yaatu yaatu yaatu mënoo caa defal kenn dara dalay yërëm rek yow lijjanti la waaye ngërëmal yàlla nag suñu borom dalay wax lijjantil gaañu ne ko moo tax ma andil leen lu leen di tax am ngërëmal yàlla mooy liggéeyal sëñ Bamba waaw radiyallahu anhum wa radu anhu loolu rek ci alxuraan loolu rek ngay dégg ngërëmal yàlla rek ngay dégg naan yàlla ne gërëm naa leen gërëm nañ ma waaye alxuraan ba mu daj amul yërëm naa leen yërëm nañ ma yàlla lu muy soxla yërëm walla radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbahu kon lii ñu Seex Ibra sóob jaamu yàlla kenn newul kenn du ko def jaamu yàlla lañ ñu sant dafa war a leer nag waaye dañ lay wax ne la liggéeyal yàlla gën mu ëpp doole waaw ¿Mm? aha waaw dégg nga loolu waaw kay mu ngoog waaw ah, Cheikh Ibrahima ne yàlla nee na liggéeyal leen ma ma yërëm leen ak jaamu leen ma ma yërëm leen wala ngeen liggéeyal ma ma gërëm leen Cheikh Ibrahima la sax lañu ñu war a laaj alxuraan ndax gis nga ñii di firi alxuraan dégguñu ko man sëñ Cheikh Fall Baye góor mës na ma laaj ne ma zalika fawzul azim ñaata yàlla ci alquran ma ne ko xamuma ko mu ne ma zalika huwa fawzul azim ñaata la ma ne ko xawuma ko mu ne ma xanaa yow xamoo dara ma ne ko aman ah, ko dama ko xamul rek hmm? mu ne ma ñi ñaa ngi firee salaatu sitta bi mati sitta nu ne te loolu la waaw salaatu sitta ci lay amee zalika fawzul azim bi mat yi sitta ci lay amee zalika huwa fawzul azim bàyyi faal yi ci seen bopp alxuraan sëriñ tubaa moo leen koy firil xamoon ngeen loolu ndax kat xam naa ne nag mag ba ko ci xotti kenn du ko feeñal waaye sànq bi sëñ Mbàkke di tàmbali am na am na am na lu mu tàmbali ci waxi sëñ tubaa jéexale ko beneen waxam te bokkuñu xasida giñ ne <laughs> sëñ bi <laughs> ah te te bokkuñu fi ñu ne te pièce ba fee la nekk ba koy mottali ci genn xasida la ko sëñ bi def te moom mii bi mu koy wax fii wax na ko fi te mu ngi nii toog xam na li ma wax sëñ bi nan la demee wala demul noonu <laughs> waaw kon alxuraan njëriñ li ak xasida yi njëriñ li ak yàlla ci boppam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen njëriñ yëpp mu ngi ci loxol Seex Ibra yooyu tuy lim yooyu di ko wut doo ko ci boole xam nga ah, ba bàyyi ku ñuy wax piti joxaane ñu ko xam fi bari na dafa tuuti woon ñu koy wax piti pëti la ci waa àll ba jublu mu nekkoon ca wetu saam sëñ bi moo ko xam ah waaw dégg nga sëñ bi nee na piti joxaane mi may tudd dafa newoon sëñ Cheikh Fall sa rakk ji lay séddoo ci kër Cheikh Ibra ka ci joxaane moom kër piti la yoroon dëkk bu ñuy wax kër piti ca wetu Saam Fall waaye piti joxaane moomu daa mas a ñëw ci sëñ Cheikh Fall fekk ñu Touba Fall ñun ñëpp ñu toog mu ne ko sëñ nag daam lu mu la bëgg a laaj yàgg na maag yéen ci àll bi waaye yéen a may bëgg jaaxal sëñ Cheikh ne ko lu mu doon mu ne ko man damaa gis li julli di def ci nit yëpp mu ngi ci yéen te du ngeen julli wax ma lu tax daan ne ko waxuma dara seen jëy yi di nes na si ku leen gis seen jëy yi di di melax rek sëñ bi ne ko laaj ko gaa yi man de loolu xawma ci dara <laughs> mënu ko xam nga ci dara ndax yaa leen raw ñi gën a sell ci bindeef mën naa ci andi kenn rek sëñ Modou Aminta Fall ñun de waxuma Cheikh Ibra waxuma ay doomam waaye lambi lislaam buñ doon bàkkoo ku ci gën a sell te ba mu ganee jamono ba génn àdduna musta def lu naqari yàlla ñun Baay Faal yi mu Modou Aminta rek la ñuy demee buñ ko taxawalee ci làmb ji kenn du yëngu maa la wax lii de ñeewuñu kenn ci moom ci sell ak jub ak wax lu baax ak dex lu baax ak sax ci taalibe ba jóge fi te sëtub Seex Ibra dëgg la wala du dëgg lu muy defee lu muy waxee astaxfirullah mosu koo def waaw <laughs> sëñ Modou Amine Tall lu muy waxee astaghfirullah mosu koo def te sëñ Modou Moustapha Fall mi wuy juróom ci lu ko jëlee ndax sëñ Fallou nee na sëñ Modou Moustapha Fall am na ngërëmal yàlla bi mu nelawee la ko wax am ngërëmal yonent bi am ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal Cheikh Moustapha am sama ngërëm te ñi mu àndaloon kenn jéppiwu ko ci.

jabaru jàmbur du la romb doo wax dëgg te bu ñu waxee nga naan Baay Faal yi dañoo war a julli ci te ñi ci nekk kenn du ci sa morom barke sëñ Touba man mën naa ma alxuraan ni ci sëñ Cheikh Fall Baye góor meloon sëñ Modou Aminta mel ko sëñ Mbàkke mii rek sax doo jarul may sori macha allah sëñ Gunda Fall mu sëñ Mbàkke Fall. nam meloon ci alxuraan li may wax dafa am seede sëñ bi xam na li may wax sëñ Basiiru maa ngi ñëw sëñ Basiiru Fall alxuraan ñooñu ni ñu mel ci alxuraan lu ko def dama ko nuyu sëñ Bas Fall alxuraan lii lépp damay yeete rek bëgg ñu xam ne Cheikh Ibra bokk ci de loolu rek laa ci jublu de ku fi jóge nag war koo jariñoo xay sun afaada man istafaada rek waaw taw la waaye buy jariñu waaye ku nangoo jariñu sëñ sëñ Bas Fall dama faa dem am tamxarit yàlla xam tombe Parcelles Assainies mu woolu ma ma ñëw mu ne ma damaa bëgg ñu bokk cere tam xarit bi ñu reeree ba noppi mu ne ma damaa bëgg a waxtaan ak yow ne ma sama baay Moustapha dañ ko fekk ngaay ndekete moom yëg na ni ñi sant Fall ñu bari fanaan nañu ngaay te xaw ma lu ko wax te ñun yëgantewuñu daal di lii limal ña fa nekkoon ñëpp ci sëti Cheikh Ibrahima moom it mu fanaan ci dëkk bi rek xam ne ñoo ñëpp fanaan nañ ñoo ñoo mat kilifa mu daan ne mu daan ne diw mu ne ko faal mu ne ko demal wërale ma kër diw ak kër diw ak kër diw ak kër diw diw ak diw ak diw fi lañ fanaan sëñ Bass Fall alxuraan ma ko wax de ci ci ci télévision laa koy wax nañ ko ko tegal mu ne ma bañ ñu bañ ñu ñëwee wër ñu ne leen kaale wër seen baay mu Moustapha nee ni ñun ñëpp ñu tiit nee kan moo ko ne ñoo ngi fi kenn ku ne naan sa morom waaye kañ nga fi ñëw yow mu ne la biig de la finance nekk ku ne daa yaxoo su dem ngaay nee na mu ne xam nga lu ma leen di doye seen maam Cheikh Ibra sun borom da ko may alxuraan waaye moom nee na ay sëtam la ko sedd na ngeen góorgóorlu ci alxuraan ndax lu ngeen ci lu ngeen ci jéem man ko lu ngeen ci def dàq ko ñëpp mafatihal bisri wal amni wal janna bi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna